bu wér. ndaka yeewu suba teel mais en tout cas. Ah. maa ngi nuyu ñëpp ziar yi mais niveau baa ngi gën a yéeg. man ak ah, yow. di ah, nga niveau bi ni mu commencé woon xam nga comme <laughs> dañu commencé zéro. jëm kaw. Mhm. waa xool euh, Cheikh Tidiane ak Chérif. waaw maa ngi lay nuyu ñoom dañu dañu xëy rek génne seen armes ñu am yëpp costume yéeg yooyu. <laughs> mais xam xam nga du course de vitesse fond la moo tax. non mais fond bi maa ngi yow attan nañ ko de <laughs> mais Cheikh fan la jógee bi ngay sëlmu ci. 12%. Chérif tu viens de chez toi cher Tidiane Diao, je te parle non. Lamine ñu dem ci une loque. fan nga jógee bi ngay nekk ci douche bi di seul Moussan. d'où viens-tu fan nga jógee tu viens de chez toi. Lamine Baal non waxal sénégalais yi sa soxla soxna sama kër ga jóge. <laughs> loolu la xamal léegi dafa bari taw. tamit Serigne ngay waxal demal ci demal ci revue de une bi. <laughs> ma ko xam nga moom euh, moom tooñ moom bu jekkoo Cheikh Tidiane du ko baal histoire bi dafa yàgg. non man ak moom bu yàgg la bu yàgg la dëgg la. Euh, c'est bi mu nekkee étudiant. Mhm. moom ak Pape Cheikh Sylla mi nek tey consul fële ca ca Madrid. Mhm. Euh, bi ñu nekkee major de leur promotion. génn sës ci sama kanam la. dëgg la mm. ndeysaan

koy wax yéenekaay yi ñoom ñoo koy wax boo boobu ba léegi boo xoolee ñu ne coowal suuf si nga xamante ne topp na Babacar Ngom euh, am na ci askan wi nga xamante ni dëkkee nañu fële nga xamante moom mooy ca jandeer ak ca jilak euh, ñoom it euh, ñu ngi ñu ngi kaas waaye ca gàddaay it père de famille yi nga xamante ni nii ñu ngi bëgg jot seen suuf mën mënuñu cee jot mhm. kasaalika naka noonu waa Malika it kasaalika waaye Mambo Diaw nekk directeur de domaines wax na nee na président de la république mësta taxaw fenn wax ni euh, bàyyi yi nga xamante ni moo nekk ci littoral bi dinañ ko nangu mhm. euh, kéwél du tëb doom jëbët loolu la ko wolof yi waxee waa am na nag coow li nga xamante ni topp na Abdou Karim Sall mhm. euh, ci kéwél yi nga xamante ni dañ leen dañ ko doon jëlee fenn yóbbu ko ca fermam mhm. waaye am na ci ñoo xamante ni génn nañ ci àdduna waaye kii nga xamante ni nii moom mooy